yëg leen ci kaw da ngeen di yëg ci kaw. pour que porte bi tijjee gis naa ko. yëg leen ci kaw pour porte bi tijjee ko. waaw kii boo kii boo Wake up, Wali. mais Wally Seck mais boobu gënu sa biir. non mais bu ngeen yéeg bu ngeen yéeg taxaw leen Vai, dá-lhe Wake up, wake up, mais

yéegal ci kaw yéegal ci kaw yéegal ci kaw dañuy yéeg ci kaw bu ko def porte bi tijjee gis naa ko yéegal ci kaw bu porte bi tijjee ba daf kii moo kii moo

Wally. Wally Amin.